son excellence le président de la république jël du conseil des ministres biñu ñu ginaaw nous bu mu lu neuf décrets de classement qui liñu tuddé tuddee ay forêt loolu nag mënuñoo bet ci jëf li président de la république jëf parce que xam nañ ne depuis 2012 bi mu ñëwee ci bopp réew mi amul benn yitte amul benn soxla lu dul sunu environnement gën a baax sunu réew gën a vert moo président de la république jël na neuf décrets pour classer neuf forêts ci euh, ñeenti régions région bu moi, la région de euh, de Kolda fofu classé na fa lu toll ni quatre forêt benn forêt bi département de Velingara ak département de Kolda ñaari forêt yi ñu ngi département de Velingara Ben forêt bi mu ngi fële ci euh, euh, Médina ñaari forêt fële ci région de Matam ci département de Canel, muy forêt bi nga xamné mom mo nek nekk ak benen forêt bi nga Fete euh ñaari forêt ci Tambakunda benn bi ci Bakel département benn bi ci département Tambacounda ak benn forêt fële ci Sédiou à bunkling mu nekk au total 94 726 hectares euh, mu ñëw euh, toftalu ci li 1 956 000 hectares yi nga Sénégal amoon na ko classement maa ngi fàttaliku maa ngi Sénégal 168 forêts classées la Qui 168 forêts classées Forêts classées classée bi ñu njëkk classées classé le 10 octobre 1930 Qui 168 forêts classées yi nga xam ne réew mi amoon na après les indépendances te si biir juróom yi bi ci classé le 1er février 1968 loolu moo waral ñu wax décision bi nga président de la république jël décision historique la décision bu am importance le ci sunu àll bi décision bu am importance est ci sunu environnement gannaaw avons pris jëlee décision yooyu euh, Sénégal waxoon naa ñu ngi lu toll ni 168 forêts classées. léegi yokk nañ ci 9 mu nekk 177 forêts classées bi nga xam le Sénégal sunu réew am na ko loolu ni président de la République wax ji mu waxoon ci discours le 31 décembre 2018 bien avant nuit présidentielle 2019 néon, c'est au prix de la régénération et de la conservation de notre patrimoine et la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons les intérêts vitaux des générations futures néon ci li nga xam ne moom mooy suñu farlu ci delloowaat euh, garab ci àll bi ak aar àll bi ci ñaari mesure yooyu lañu mën a aar intérêt yi nga xam ne ñoom ñooy génération yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ëllëg président bu mu waxee loolu jël na ay décision yi firndeel ni, wax jooju mu waxoon wax ju am solo la moo tax ginnaaw bi mu taxawalee initiative bi nga xam ne moom la le PSE vert mu créer li nga xam ne moom agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte mu jël décret classé li nga xam ne moom la réserve de la grande Niaye de Pikine muy waaj jël décret pour classer dix hectares fële ci situ aéroport Léopold Sédar Senghor pour daal di koy def le parc forestier urbain de Dakar Yoff loolu nag doy na firnde buñ ci tegee li nga xam ne moom la ñu wax léegi ci farlu bi nga xam ne président de la république farlu na pour que le PSE vert soit une réalité au Sénégal li ma bëgg mooy réew mi naat ci qui bi réew mi naat ci dëkkuwaay ci grande ville ci reverdissement et ci le reboisement information bobu lañu bëggone partager ak yeen di len jaajëfal yeen wa presse bi di également, également sunu partenaire au développement ñi nga xam euh, secteur environnement la yëngatu pour nous gën ñoo may nopp pour nous mën pour ñu taxawal li nga président de la république ci wàllu environnement maa ngi télé askan the last can be.